papa nuy naa la. waaw wax yàlla Ablaye nit ku baax la nit ku baax la te lii mu def nii jullit noonu lay def nit woor nga def ay xéewal jox leen te ci kafe gi la ko commencé ba tey jii dimanche bi mu ne tey la koy ferme maanaam daal di togg ay xéewal yu bari jox ko doomu aadama yi te lii rek moo feeñ lii la lii def mu feeñ mais li muy li muy def te feeñul moo ëpp. man mii di wax ak yéen nii chaque korité chaque tabaski mu jëndal ma mbubu ñawlul ma ko waaw te da koy defal ñeneen ak ñeneen amaana sant yee daje sant yi dafa daje ñu dëkk ñu dëkk dëkk nag ci yiw wax dëgg yàlla ablaay moom kenn mënul nattable nu mu mel ci baaxaayam nu mu mel ci yaatoom ci bëgg doomu aadama waaw waaw wala waaw ci lim lay mun a wax nii mun nañu wax ne première année la ndax tey ngeen fii soog a ñëw mais daana ko def te lii lépp du ci am waaw ci maanaam joxe ay joxe joxe ay xewal yoo xam ne day dugg ci biir kër gi wala mu làmb ci poosam joxe loo xam ne musul siiw comme nii mais tey lañ mus a togg indi fii joxe ko ay xéewal waaw kon mun nañu wax mooy premier édition bi ci togg bi mais lu lu mës di am la ndax mi ngi fi bëgg a yàgg bi mu fi dëkk ak léegi ak yeneen ak yeneen. sama digganteeg moom daanaka diggante nit ak doomam la nit ak doomam la ndax ci lim mooy lim la wax léegi rek sant yi dafa daje ñu ñëw yàlla boole ñu waaw mu ci samay doom la commencé ba yegg si man. relation relation yu baax la mag doomu aadama ñu mu dëkkal fii ñi ma xam ñi ma xamul waaw muy am itte ci ñoom di di def ay xéewal ci ñoom ñu nekk daal ci jàmm nit ku baax la. kàddu gu mujj tamit loo koy ñaax. sama kàddu gu mujj daal maa ngi koy ñaanal wér gu yaram ak mujj gu rafet lii mu def tey bu déwénee jël na nekk ay nag ay xewal usine benn tali yëpp bokk waaw. ñu ngi koy ñaanal di leen gërëm di leen sant yéen tamit yéen ñëw def reportage bi wax dëgg yàlla kenn mënu leen fay waaw ñu leen di ñaanal wér yaram ak mujj gu rafet yàlla may mu fanu gudd may ko mbooloo mu julli jërëjëf. jërëjëf Pape merci merci jërëjëf jërëjëf yàlla nañ ko yàgg a def. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu de di leen ziyaar di leen ndokkeel bu baax te di leen ñaanal yàlla. mucc ak muccule raw ak rawle aajo yu faju xewal gu saawaan baawaan ñu ngi am mbégte ak kontante ci suñu xarit bi nga xamante ne taalibe la ci yoonu Serigne Touba taalibe la mu nekkee bañ na ko ba dafa tuddee boppam lay mu Serigne Baara Serigne Baara mu Serigne Jili Serigne Jili mu Serigne mu Mouhamadul Fadal Mbacké taalibem la xaritam la soppeem la wëllëreem la moom nag tey moo doon defar ay ndogu di ko defal jaamu yàlla yi ngir lan ngir màggal weer wi ngir màggal li nga xamante ne moom la bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci maanaam leyal jullit bu xiif nga yëkkati benn tibb rek dugal ci biir bi kooku fay la goo xamante ne tabaarakallahu kenn xamul nu mu toll parce que maanaam i leele dafa bokk ci li nga xamante ne Cheikh Abdou Khadir Jaylaani defa ne qaddasallahu sirrahu nee na gisul gisul lu gën a rëy loolu nee na bunt yi jëm ci suñu borom yëpp fëgg na leen xool na leen waaye gisul bunt bi gën a rëy lele mooy lan mooy leel jullit bu xiif bi nga jox ko mu lekk ba suur rawatina nag weer wi nga xamante ne weeru yeneen ci yàlla muhammad di weeru alquran di weeru lan di weeru woo xamante ne mooy shahru ramadaanil mubaarak weer wu tedd weer wu barkel ba nga xam ne suñu borom moom moo moo wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jëfu doomu aadama de moom ma waaye koor moom man maa koy fayal sama bopp yàlla dafa ne ana ajzi bihi man maay ki nga xamante ne man maay fay koor gi kon yàlla moom mooy fay gi kon dafa rëy ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu rëy ci suñu boromit it ba nga xamante ne weeru jaamu yàlla la jaamu yàlla nag weesuwul maanaam it nga tàmbalee ko maanaam ci lele lele mooy lan mooy comme li Abdoulahi def tey Thiaw mooy lan mu defar ay bernde jox ay ay ay ay ay ay ay ay ay moromu jullitam ay moromu taalibeem ñoom ñëpp ñu lekk ba suur mu naan ba mandi loolu kenn mënu koo fay ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne atimul jaaya na ngeen lele na ngeen lele na ngeen leel aji xiif waaw nee na itam benn tibb itam ci biiru jullit rek maanaam it kooku maanaam li ñu la ko mën a waxee misaalale ko moom mooy lan tiyaaba la te tiyaaba loolu maanaam it suñu borom maanaam dina la ci faggul mooy lan mooy aljanna kon tabaarakallahu macha allah uh, wax ji duñ ko guddal dañ koy gàttal ndax lan ndax xataayu waxtu wi suba ba léegi ñu ngi ci yitte yi dañ ci nekk caw nag li ñu mën a seede ci moom suñu xarit la suñu soppe la suñu wóllore la ba pare itam mu nekk itam jawrin kër sëñ jiili mu sëñ baara baara mu mu mu sëñ jiili mu sëñ jiili jiili mu sëriñ fallu fa la nekk jawrin mu nekk jawrin ju mag foofu noonu tabaarakallahu ah xam naa ne tey moom sëriñam dina bég ndaxte sëriñam moom lii da koy def kon nag bu toogee ba gis lii moom it dana bég lool dana kontaan lool ci lii nga xamante ne maanaam it tabaarakallahu xew na fii am na fii nii ci ci ci ci taxawaay bu rafet ci lan ci euh, ci taalibem ci wëllëreem ci soppeem boo xamante ne maanaam tabaarakallah moom it dafa amoon bés tey woo ñu ci ñun ñi itam mu ne fa laa budda ñu nit ñu ñëw barkeelu ci bés bi jàppale ko ci bés bi ci ay xalaat yu rafet ci ay euh, ci ay ci ay xalaat yu rafet ci ak ak jàppale itam ci wàllug liggéey bi kon moo ñu fi indi woon tabaarakallaahu kon nag dañ koy sant bu baax di ko ñaanal itam bu baax a baax a baax te di ñaan itam nag ñi nga xamante ne maanaam it teew nañu fi suñu borom ñu ñëpp may ñu ñu fekkewaat ko te tal ko yaa rabbi ci barke yeneen bi ci daraje yeneen bi ci barke Serigne Touba ci daraje Serigne Touba yàlla mën na ko am na ko sañ na ko itam yàlla na ko borom bi def yaa rabbi yaa rabbi yaa allah yaa allah ci barke yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag foofu lañ yemale ah ñu ngi ñaan itam yàlla nañ ko fekkewaat te tal ko te itam fekke bi tam yàlla bu kenn manqué yàlla ñun yàlla na yàlla defal ñun ñëpp ñu am yokkute itam ci zahir ak ci baatin rawatina seen sit bi yéen it waaw suñu borom it may leen wér ak wér la ak yokkute bu baax a baax a baax ba lépp foo fépp koo xamante ne bëgg ngeen ngeen àgg foofu noonu ngeen romb foofu noonu di dem di wéy di dem di wéy di dem rek ba illaa ma sha allah xaqa qadri wa miqdaari azim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu suñu mbokk yëpp di leen ziyaar di leen ndokkeel di leen tatagal dina wax ne bëgg nañu lool tabaarakàlla macha allah ci bés bii nga xamante ne bésu bernde la bésu mbégte la mu tombek lan ñaar fukki guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci bésu ci ci ci weeru koor mooy sahru ramadanil mubarak nga xam ne guddi gu rëy la itam dañ ci yaakaar itam lu mel ni mel ni laylatul qadri ndaxte yeneen bi dafa ne maanaam guddi yu mujj yëpp laylatul qadri la kon nag ci leetul xadri lañ ne kon nag guddi gu mat a dundal la guddi gu jara jëkkati lekk yi teral eh, sa moromu jullit jox ko mu lekk ba suur kon tabarakallah macha allah mbégte ak bànneex lañ ci am ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ñaanal tawfiq ak tey di leen wax ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ bi nuyu naa waaw maa ngi lay ziar bu baax sëriñ bi di la ñaan. xam tur bi. Adama Ndour laa tudd Adama Ndour fii si ci kër gi ak tamit li sa jëwriñ woote. te ji noo waaw ñu am ci contentement bu mag nag ndax euh, suñu waa ji moom dafa nekk nit ku nga xamante ne nit ku déggu la koo xam ne day góor góorgóorlu lu baax ci yoonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di góorgóorlu tam ci liggéeyu Serigne Touba yi nga xam ne def ñu ko bàyyee tout le temps mu di ci bàyyi xel tout le temps mu xam ne euh, fii àdduna la tam te day jeex. nga xam ne doom aadama bu nekk dafa war a jël xelam xam ne fii nii dañ fay jaar rek mais bés de ñëw ñu won gan ñu won dëkk bi gannaaw nekk ci leneen te su boobaa tam suñu boroom ngay dajeel. ba tax na moom bés bu nekk mu ci bàyyi xel bu gis nga ni mu ko defee nii ci guddi euh, laylatul xadar bi nga xam ne ñu bëri ñu ko dundal tey mu tombé juste mu def ci ay bernde euh, woo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe ni ko jëriñ ji waxee léegi nii ñu teew fi kenn ku nekk euh, yaakaar naa tey gis ngeen nu mu demee nii kenn ku nekk lekk nga ba suur. ciy sant yàlla bu baax nag di ko ñaanal suñu borom tam lépp lu ci séentu ci lu baax suñu borom defal ko lu kawe njortam defal ko ci barke bu bëree bëri te boole ñu ko ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa xale li ko waroon bari na trop xoolul loolu xelam yëpp dem si lan joxe ñam ngir ngir guddi Seydina Muhammad waaw mu mel ni tam euh, dañu wonaat beneen yoon ndax euh, nekk xale tey ñu bëri dañu jàpp ne xale mu war a fo waaye benn xele warul fo ndax boo xoolee yu am na téere bu Sëriñ Tuubaa bi ñu koy wax si xaar ndaw yi la fay waxal nga xam ne ñun ndaw ñii nga xam ne dañoo nekk ay tu tànk suñ jaamu yàlla moo gën a wóor tey beneen jaamu yàlla ndax xale bu fekkee ne nekkul di jaamu yàlla su magee rek du mën na koo bañ a def yaakaar naa xale bi ñu amatul ci dëkk bi pour jaamu yàlla mën naa demee neneen waaye tam muy bàyyi loolu xel bu baax xam ne xale moom jaamu yàlla rek ko war waaye doo bàyyi bu nekk mag ne ma def lii doos bi fii la ëppee fi nga nekkee xale nga xam ne foo da lay war lii da lay war loolu yëpp nga won ko ginnaaw jàkkaarloo suñu borom tabaraka wa taala ñu di ko ñaanal yàlla suñu borom tam loolu mu dégg ma suñu borom yàggal ko ci bu baax defal ko ci lépp lu mu soxla ci lu baax suñu borom defal ko ci gën koo xiir ci boppam bu baax te gën ñoo xiir ci boppam tam ñun ñëpp ci barke yonente bi waa xanaa di ko wax mu gën a lu bu baax xam ne liggéeyal yàlla suñu borom yombul góor yàlla yi fi jaar yëpp kenn ku nekk tey ba ngay liggéeyal suñu borom teq-teq fekk na la waaye dangaa jéem a jaayanteeg sa borom ba tax teq-teq yooyu nga won leen gannaaw neex bu ne tam dina la wuyu si ci booy liggéeyal suñu borom ngir yàqal la nga mun a jàkkaarloog lu neex li bàyyi yoonu suñu borom bi ndax liggéeyal yàlla suñu borom yombul boo koy def nit dina na jàpp ne kii ngis sa lay def nit dina jàpp ne kii dafa ëppal nit dina jàpp ne kii naka su dul noonu mais yow mi nga xam ne suñu borom rek moo tax ngay def yow yaay am gëm-gëmu nit ñi di wax nga won leen gannaaw jàkkaarloog suñu borom lu yàgg-yàgg dañuy ñëw mën nañoo wax ni rek mais lu yàgg-yàgg dañ ñëw li ma ko ci dolli mooy na gën a góor góorlu ci gëm yàlla ak yonente bi ak nangu ko jaamu bu baax mu gën cee góorgóorlu bu baax a baax yoonu Serigne Touba bi nekk tam mu gën cee góorgóorlu bu baax lépp lu mu ci doon def mu yokk ko xam ne ndam rek la ci am ñu ngi leen di ziar bu baax nag di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum Ablaye. maaleykum salaam ku baax. Ablaye dinaa bu ñu nuyoo. te ñu gis sa teewaay si lii nga def ko ni joxe si ay ndog jox si ay berndeel lii looy soog a def la wala loo yàgg a def la. non loolu asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi lii dañu nekk ndaw rek mu nekk suñu bëg-bëg nekk ndaw mu nekk suñu bëg ñu bëgg ko di ci doon ñaan yàlla yàlla mën noo dimbale ba ñuy am. lu ñuy mën di jox jaamu yàlla yi nekkul loo xam ne nag presque muy ci ñun suñu jom rek lañ ciy demee dañuy pos-pos rek di jàppale ci kii rek di dëgër laayu rek mais nekkul loo xam ne maanaam dañ koo dañ koo dañ ko dañ koo taxaw pour mone ko nuñ ko war a mone mais suñu jom rek moo ñu ci yóbbu te mu nekk suñu bog-bog loolu la. gis tey nga taamu si guddi guddi laylatul xadri muy dimanche bi mujj si koor gi. loo kale la wala wala lu loo toog la ak gaa yi xalaat ko. no loolu dañoo toog rek ñu ne ko nañ ko def dernier dimaas bi muy sama rakk bi ak Amet mi sama rakk la sama doom baay la ak Sidi Ba bi doomu maire bii la mais dañoo mel ni ñoo bokk ndey ak baay sama rakk lañ bu ñu waxtaanee ñu jël tiset yi def ci sama sëriñ. te loolu bi ma demee ci moom pour su jéblu ci moom loolu laa ko doon ñaan yal na ma yàlla suturaal ba may mën di dimbali jaamu jaamu yàlla yi ci loolu laay dox chaque jour bu may bu ma julee sax moom laay ñaan yàlla yal na ma yàlla dimbale may mën di dimbali jaamu yàlla yi. xanaa di leen sant rek jigéen yi ñoom sama jigéen lañ ci lu ma nekk ku ci ñoom bu ma demee ni voyage sax am ñaari fan ci àll bi wala trois jours ci àll bi sax da gis ñu yëkkati seen téléphone di ma woo laay xanaa ne fi fan yi dañ laa gëj a gis ngay ngay. gën ci koñ bi di xëy loolu ndimalu suñu borom la rek ak ñaanu waajur di ñaanal sama papa ak sama yaay yal na leen yàlla xara aljana oyofal suuf bi seen kaw eh, mu nekk tey loo xam ne xaw na ma diis tuuti sax tey bu ma mënee dem ba am ay cent franc wala ay fukki dërëm te mënuñ cee lekk metti na ma mais terewul am na ñi sës si ñoom maay deflanteeg ñoom maay waxlanteeg ñoom ku mel ni kene sama mbokk la ci sama neegu ndey la sama neegu papa la bokk loo tax ma ne ko il faut nga toog bu xaar bu gaa waxtaan ba pare kii nii sama nit la sama xarit la kon donc pel mel na ni rek ñooy fi di sant ñépp sama sëriñ nag bu ma ciy wax sax kon wax bi. xaw a sexaw lañ lépp ñaari mbana café lañ defoon te yaakaar naa feete na boor ak kafe sexew bi feete na boor yooyu yëpp jox nañ ko ga gaa yi ginaar yi lekk yëpp doy na wax dëgg la mënuñoo jox ñëpp nag bu ñu jot ci mais suñu yéene presque bu ñu sañoon mu egg bu ñëpp ku fu waay nekk rek jot ci loolu daal woon nañ ko. ñoom yëpp maa leen di sant ñii sama rak lañ ñii ñoo ñii ñoo bokk nde ak baay fii fii laa de toxu ñëw fekk leen ci koñ bi ñu ñëw tafu sama kaw def ma mag ma def leen rak ci lu may dugg dañ koy xam fi may dem dam dañ koy xam ker foofu ngeen eh, fekk gaay di toge foofu la booy bii dëkk paa bu doon wax ak yéen mooy paapam sama ker la kii fii la dëkk ñoo jàkkaarloo ay nekk booy bi kii ci bopp koñ bi la dekk yeneen booy yi ci ginnaaw koñ yi buñ ñëwee waxtaan gaa yi def xiiwal bi ñu wax gaay yi ne bu ñu gaay yi ñëwee bu ci ngoon maa bi dañuy barkil ci xasaayit yi bu ñu demee bu xasaayit di terminé ñu door cant yi cant yi dem bu fajar ci lañ nekk nii bu ñu yow quatre heures du matin laa yow bu léegi fi may wax ak yow nii sam te daatuma ci kaw lal waa marsa asalem yóbbu nañ fa ñam ba ñu doog a ñëw nii yóbbu nañ ku nekk daal fu ñu ye suñu yeene egg xam ne ñëpp mënuñoo dajale ñëpp ñu lekk ci am nañ fuñ daal fuñ leen jox ñu mos ci ngi mënoo marché bi yëpp mënoo leen a daje jox leen lekk mais ñun daal dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu wér gu yaram ak gudd fan ba ñuy ñëw di koy di fi yeew ay gelem ak ay nag muy dem bu ñu koy yóbbu tuubaa ki nga xam ne dama ko doon ñaanal tey sama yéene ci moom mënuma koo wax sax dëmb bu ma ko woowee ne ko sëñ bi ndog bi may def chaque année ma ciy départ de yaa ma ko doon ñaanal ay cinq ginaar laa doon togg ay trois ginaar dem naa tey bu di ko togg ay ay quarante ginaar mu ne ma ci kaw ci kanam la jëm ci kanam la jëm ma ne ko ah mu ne ma waa mu ne ma bu soobee yàlla ci kanam la jëm kon nag kooku mënuma am fayam guddeeg bëccëg bu ma amee semaine sax wowuma ko day yëkkati téléphone am woo ma na ma caw ci loo nag yaa ngi ci jàmm defal nii defal nii defal nii yoon bi ma teg maa ngi koy sant bu baax a baax aw ma waaju deseetu waajur de mais barke Seydina Mohamed jooyu ma waajur ngi moom dem may nemeeku di ma teg ci yoonu ju loo amul loo ñàkkul tegal ne loo am boo dimbalee sa waajur bu pare dimbalal néew du doole yi nga xam ne mënuñu dara nga leen di jàppale te yàlla rek tax boo amee del def toog ñam ba mu ñor nga xool jaamu yàlla yi nga xam ne seen poos diisul noonu nga jox leen ñu lekk ba suur naan taale na otom bu Touba ba ñëw bi ci néeg bi fekk gaa yëpp suuru dimanche ñu fi ñu nekk fi bu mu ñëwee rek mu sama xol sa na ci yow mais gën gën a tinaa ci yow léeg chaque dimanche yaa leen di jox lekk ñuy lekk ma ne ko dañuy jéem rek mënuñu mu ne ma sama xol sedd na ci yow loo loo amul wala fu ñu la dégul xamal ne danga nekk ci yoon boo xam ne du yoon bu baax del del del lekk loo moom del lekk loo ñàq looy def it nag na ko ñàq boo nga xam ne lii yaa ko ñàq nga koy génne di ko ci dimbale daam loo liggéeyul wala luñ la mayul bu ko dugal ci sa alal boo ko defee rek fu nekk dinañ la fa teg kon nag oma fayam oma di sant waa Bambey yépp bàyyiwuma kenn du waaw fogole seereer rek mais sin ma den den fopo mbaca fa neeke fa Mamadou fa naana fa Ibrahima te soɓ o ndokale fe defaak fa bad sen fa a gara lenge sala na goot fa a gara lenge ref na Castor a yoona fa Modlo Jogoy Diouf jegim ndafid den fa Magu Fall te refu maak in marché na i njegeero ka joyta'i nananga in a mbi'tiyo neke mbi'tiyo neke oxena o xaaga yit i njegeero ndafidum ɓaak kaaga genu im simna o fog ɓaak kaag tout Mamadou Ndour fa neeke Iba Der Magu Fall fa ne refna o maak in a refa a in ma tout xaƴiim o leŋ marché a Salem Ibou sama doomu ndey la maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wergu yaram yàlla may ko gudd fan ak wergu yaram xaaga kiin sooxa di ñaanal ñëpp xajimo leng waa baari waa ndondol ɓakak seesen ndalan xajim to leng ñanana den o njaaj fo o maak ko kiina mebet na te ref ka andoona yee roog a waag no rangi ten rek yala sam te ref ka malonga ñanana den den fop xajim to leng maak fa caaƴ fa layene koy a felang a wala ka jageerna ref te o ande fa layo feleeru oxana fa layo feleeru sénégal ndi bo leya wiin we ka nan gilwa manam kata kata ley kino diw fa nana kata leyna wareer no ley kon nak sante ami o fog fop goor fo rew maak fa caaƴ fogo sereer xuna leya kame rek mais sante ang gidma tout koy wena ñanana xamo xajimo leng aliou ndondol mais sante an a paax pasitor mais sante an a paax biram may santaan a paax xonna we andoona ka ndamoona mi pa jaata parcelle may santaan a paax xaƴiim to leŋ waa xaƴiim o leŋ den tout may gidma den fogola Casamance may sant a den gidma den den fopo ka ndamoona ma des a ñaanana xam ñaal fo yeng xonna Pape Dieng Mor Dabo andoona yee ino eh, mbogo mebed na andoona yee ka i ngaroo garaayof mbi'o cosaan no seereer mais ñanana den hoɗoñes fo wod fowodane la garay meke a miñay me torop sax me ka lacelo gurfan o woñ tuxatina xaad wene doom day sooxa waxana ñanana den o kiino kiin fo ɓaslof yala sam roog fo yaalo xaƴong me roga refo kaynakof xaƴim o fog no seereer xu limnona rek ko juum rek mais santa den Cheikh o Ndeɓes jegim ndafidum Mamadou o pog fa pesoox mi yarun Dakar jegim ndafdum waxoon naa Moussa Faye bi alaaji Modou may santaan nges ne rek o falaka mo xoya téléphone ma tolwaten affaire ke fop daal o limanga ko juum mbin ngoor caw maak fa caac xajim to leng may gidma den di la gërëm di la jox sa wàccuwaay bu wér a wér waaw moom sama doom sama doom day ngeen yéen moom li yàlla xam rek ñoo far ñoo bokk ndey ak baay te lii dañuy xel di ko dem di ko dem ba ñu di yee fii ay gelem bu soobee suñu boroom di yee fii ay gelem ay ay nag di ko togge fii ngeen topp suñu kaw ñu wëtti kër Sëñ Baara Touba Ndindi bu soobee suñu boroom sama booy yi nag mën nga leen a laaj ñu tontu ngeen yeewoo ko ngi suba ba léegi kenn waa suba ba léegi yéen kenn mënu leen a fay suba ba léegi yéen a ngi fi waa ngeen sànni joxal Sidi ba mi mu wax waaye nuyoo naa yéen ñëpp. Ah. yaa ngi ci jàmm bu baax saa waay moom maa ngi koy sant kii suñu ganaar bu baax la ñun dañ ko jàppee comme suñu ganaar amuñu fayam ndax sax korite tabaski yi billaahi wallaahi ñuy ñawal maag booy yi di ñu jënd ay tësi kii kii yàlla lañ koy baay mu fayal ñu ko billaahi amuñu fayam te lu muy def nii yàlla na gën a yokk moom si barki alxuraan karim yàlla na gën a yokk amuñu fayam laay ganaar bu baax la ay ñoom pap dëkkoon doom ñi ñoom ñëpp dañoo baax ba mu ñëwee fii weer weer rek yàggul de mais mooy loolu quoi ba mu ñu jàppee ay ay rax ay ay doomam sax lu ñu jàppee billaahi ay doomam lañ jàppee mënoon na ñëw toog bañ a wax ak kenn ñu day toog parfois mu yëkkati ay meew yi ay lay ataaya jox ñu toog ceere yaa mais kontaan naa maa ngi jox kàddu waaw waaw jërëjëf jërëjëf si borom Touba jërëjëf borom Touba ginnaaw ba ñu sant yàlla du ci yéen tamit sa ñaan waajur comme Sidi fu mu daanee rek laay moom grand bu baax la te et ñun bañ juddoo ba léegi ñu ngi si koñ bi mais grand bu mel ni moom mosuñu ko gis wax dëgg yàlla jël nañu taf ñu si boppam xama jàppee ñu comme boppam ba pare lii nii du du koor gi rek la koy def parce que màggal Touba fii lay ñun ñoo koy jàppale saako ceeb yëpp paas sax moo ñu koy jox ne ñu màggal leen xam ne kook mun ñu ko fay kon daal dañ koy ñaanal rek xama li mu bëgg ci xolam yàlla moo xam xama ak moom yàlla na ko yàlla defal xama après lépp lu lépp loo xam ne daal bëgg na ko rek moo xam yàlla na ko yàlla defal ñuy sant Serigne Saliou bu wér a wér a wér ndax ñun moom wax dëgg yàlla amuñu dara lu dul Serigne Saliou nu ñu mel suba ba ngoon Serigne Saliou moo ñu ko def jërëjëf Serigne Saliou